Thank you. asalaamaaleykum ah, mbokki Sénégal ginnaaw bu ñu sante yàlla ah, di masawu askanu Sénégal di jaale askanu Sénégal ci tiis bu ñu yàlla natto depuis quelques jours mbokk yi lii laa gisoon ma waxoon ko te mangi am mettit lol parce que luma ma ñaan yalla yalla musal ko askanu Sénégal melni mom moom la ñuy dund tey nii wax ji nu tuba bi di waxe l'heure est grave te le génie du peuple sénégalais daanaka yag nañ dundu ay situation yu metti wante yalla yagal nañu suturaal bañu génn ci te dama ci am yaakaar incha allah que bii tamit dinañ ci génn incha allah moo tax mbokk yi du ma sori ci wax ci kàddu yi lu ko waral bugguma commenté lu tubaab bi wooye parodie de justice parce que askanu Sénégal amul kenn ku ci am xel ñaar ci justice su Sénégal tey lu muy exécuter ci ay commande politique tamit lii di responsabilité justice du Sénégal tay ci metti ci askanu Sénégal di qui ci sen yene décision yi parce que jappé wumako comme condamnation lu ma ko jàppee disqualification ak élimination luñ ci namm ñoom mooy bëgg organiser sélection te baña organiser élection et may biralaat encore kàddu yi di ko jëmale ci président de la République président Macky Sall président maa ngi lay ñaan ci yar ak teggin nga dellu siwaat sa xel parce que président Sénégal jiwu la lii suñu mbokk nga suñu président nga loolu la yàlla dogal loo ñuy teg suñ na ko tegoon tey doo nekk président du Sénégal seetaatal sa taxawaay président wax naa la ko ba ñu yàlla may ñu toog amoo fi noon dégg naa sa ay kàddu ci dialogue bi bu ngay ubbi dialogue bi am na sax ay sénégalais yu xaw a ñaawlu peut le ton wala les mots utilisés président man pour que Sénégal am jàmm man nangu naa raam ñaan la yow parce que jàmm bi ngi sa loxo parce que lu fi yee tey fitna Sénégal xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede président ne nga waxu troisième mandat nañ la ko ñaan ci njëkk dama ne su nekkee loolu dañu nar def pour que Sénégal am jàmm man Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar maa ngi lay ñaan ci njëkk waxu troisième mandat bi président nga teg ci suuf en tant que acteur politique président maa lay ñaan ci njëkk waxu troisième mandat bi nga teg ci président de la république en tant que rakk ci yow maa ngi ñaan ci waxu troisième mandat ñu teg ci suuf ma yok ci tamit ma ñaan la ko ci ak ci yarak ak parce que l'unité ñuy dund ni, nii te lii yépp lu waral mën nañ juum wante lu ragal euh, lu waral mooy lu ñu ci waxu troisième mandat te tey mu am ci askan bi ñu ci bëri ñu jàpp ni que yow da ngaa bëgg éliminer ñëpp pour mën a toggaat fii te président yow xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede wax nga sa gémmiñ suñu nopp ba ngay def référendum te xam nga lu constitution wax te président violence bu ñuy gis tey yépp lenn da ko ko waral te mën naa jum et je pense que waxu troisième mandat bi soo ci nangoon yàbbi ci danaka xol yi nañ fexat motax président may sakku ci yow nga genn wax ak sa askan wax lañ luñu ñu dégg parce que président notel bu ñuy wootee Sénégal jaay doole bu ñuy wootee Sénégal mënatul continuer kon nak président xoolaatal sa taxawaay parce que ñu nekk ci mbedd yi mu neex la mu naqari la yaay seen président te bañ lay fal dañ la faloon ngir yaakaar musuñu la fal ndax lu ñuy gis tey nii di ko dund tey nii loolu xel musu ko xalaat te loolu dara jaru ko ci àdduna fii yàlla rekk fi nekk keneen nekku fi am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur amoo fi noon wax naa la ko di bérilaat wax ci président dañ la bëgg dimbali ndax yow nga mëna dimbali Sénégal ci ban anam dimbali la pour xol naka lañ lay wutal yoon nga génn fi par la grande porte parce que moy sa cër président président sélection bu ngeen nam def Sénégal kenn mënu ko fi nangu parce que constitution lu mu leen may ci sañ-sañ mooy ngeen nangu organiser élection sélection bi dafa yag ñuy toog di muñ di muñ tay nak yalla wane na boppam Yalla moo de décidé que sélection jeex na may sakku ci yow tamit nga nangu président motax président je crois que ne nga du am ben sujet tabou ma comme amul ben sujet tabou nañu waxtaanee lepp parce que ci waxtaan la lépp may sàkku tamit ci askanu Sénégal ñu bàyyi xel ci lu ñuy wax parce que ba Sénégal doone Sénégal ba tey mbokk yi yàgg nañ fippu yàgg nañ wane suñu naqar wante kenn musu fi am ndam kenn musul egg au pouvoir par une violence absolue te wax naa leen ko nee naa leen lu fi xewoon mars yan laay waxal askan bi bëgg ngeen bàyyi ci xel parce que askanu Sénégal da ngeen am xel macha allah bàyyi ci xel lu fi jotoon xew ci mars 2021 mu bettoon ñépp wolof njaay nag ne lu la bett mën la waxoon naa leen ci depuis 48 heures su ma jumalee am nañu egsi fi Dakar mais profiter ci occasion bi en tant que maire de Dakar pour souhaiter à la Grande Muette la bienvenue chez eux la bienvenue dans leur capitale les inviter à continuer à rester cette armée républicaine exemplaire aux côtés du peuple sénégalais mais je voulais vous rassurer vous cette Grande Muette que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous allons trouver un dénouement heureux à cette situation. Nous sommes des acteurs politiques. Nous sommes un peuple mûr. que vous puissiez nous accompagner. Mais à vous, le peuple sénégalais, Si on ne s'entend pas, que personne vienne dire que tous les acteurs politiques.

ñu naroon waxal wax nañ ak ñoom lu ci des mooy que les acteurs fassent preuve de tenue et de retenue mbokk yi am na ñu bëri ñu jàpp ne ni que président dina def troisième mandat man mën naa juum wante man gëm naa ni que troisième mandat du am Sénégal mais nañ ko teg ci yoon nañu waxtaan te bàyyi nekk fii di jéem a xoqalante suñu biir wala tubaab di wooye se faire peur jouer à se faire peur loolu amul solo amul ben solo parce que xam nañ kañ la commencé mais xamuñu kañ lay jeex ak naka lay jeexee kon nak mbokk yi lu tax may wax lu may wax ni dañu nar am élection présidentielle février 2024 gis naa ci ouverture dialogue bi parce que nekkuma fa woon dama doon xaar ñu jox ma les termes de référence lan lañuy ñuy waxtaane parce que man lu ma tax a jóg dem naa ni ataaye déet man naan ataaye taxuma jóg lu ma tax a jóg mooy dem waxtaanee Sénégal ak lan lañu mën a def ba génn Sénégal ci guutu bi mu nekk nii am nañu bokk ci beneen boor bi ñoo xam nag lu leen tax a jóg ñoom ñu ne daal dañu xalaat que mandat président dañ ko nar a proroger ñii ne un an ñii ne deux ñu ñun d'accord ñu si tey duñ si mës a d'accord mbokk yi bu leen jox gañi excuse wala prétexte pour ñoo na leen dëkk bi dafa instable ñu fi organiser élection bu leen ko def xel moy xex xol du xex amna dëkk bu sorewul Sénégal ma tudd turam président tok na fa dix ans musu fa am élection ndax lan ñu ne dafa amone une rébellion dans le nord de ce pays bu leen jox gañi excuse parce que gañi ñu ngi dem te bu leen nangu gaay di dem di ñu yóbbaale parce que réew mi ala kuli al ñoo ko bokk te lu ñu bokk dañ koy pencoo duñ ko pàccoo lu ñu bokk dañ koy waxtaanee duñ ko yàq-yàqet kon nag mbokk yi damay bañ a guddal mais fu may daanee tamit mooy aux forces de défense et de sécurité ñu ngi leen di massawu tamit ñu ngi leen di jaale seen mbokk yi fi jóge te metti na ci ñëpp wante yéen tamit ñuy sakku ci yéen euh, yenn yi su mën ñak wax deug yalla ngeen def sen kéem carte mu ñak parce que yéen yaa choisir def maintien de l'ordre maintien de l'ordre mënul ànd ak bouclier humain dañuy waxante deug mënu leen dem jëli xare bu ndaw mais da di ko utiliser comme bouclier humain loolu rafetul ci image du Sénégal ndaw ñi tamit ñuy manifester vous exercez certes un droit mais balen xel ci dalal ñu nekk ci mbedd bi xam ay policiers lañu ñoo xam ay gendarmes lañu sommes ay chinois ay sénégalais nous sommes des voisins nous sommes des parents dara jaru fi yenn nañ ko parce que lu jeex jeex na te lii buñ ko yàq nañ ci ànd xel nañ ci ànd dal ci sommes ak fermeté parce que suñu nous sommes des parents. c'est parce que wolof njaay parents. na lu ëpp motax président Macky Sall fu may danalé moy bayil xel ci lolu Sénégal ji te xam nga fu ñu lay xaré te wax na la ko comme nga nañ la ko ñaan ci njëkk man mi Barthélémy Dias ñaan na la ko ñetti yoon ci en tant que maire de Dakar en tant qu'acteur politique en tant que jeune frère mbokk yi lolu mo nekkoon cadeau yi di ñaan yalla di suñu borom Yalla na de Sénégal yalla na Sénégal na may bonsoir Sénégalais d'ici et d'ailleurs je viens vers vous aujourd'hui pour pouvoir échanger et communiquer sur la gravité de l'heure. À l'entame de mon propos, je souhaiterais présenter mes plus sincères condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais mais surtout dire toute la peine qui nous anime en tant qu'acteur politique, mais en tant que citoyen sénégalais lambda. Chers concitoyens, l'heure est grave. Mais nous devons faire confiance au génie du peuple sénégalais. Nous avons toujours vécu des moments, certes incertains, mais nous avons toujours trouvé la force de nous relever et surtout l'intelligence pour pouvoir dépasser certaines situations. Aujourd'hui, je ne souhaiterais pas commenter cette parodie de justice qui a plongé le Sénégal dans cette situation chaotique et malheureusement incertaine. Nous avons toujours dit que la justice sénégalaise est à l'origine de quasiment tous les maux dont souffre actuellement le Sénégal. Cette justice, je ne parlerai pas de sa condamnation. Parce qu'il n'y a pas de condamnation. Nous avons assisté à une volonté manifeste de vouloir verser dans une disqualification, voire une élimination d'un acteur politique de premier plan. Et je voudrais dire que nous sommes aujourd'hui au troisième, voire au quatrième cas. Et ça ne peut plus continuer. Et l'objectif recherché dans cette parodie de justice, c'est de trouver les voies et moyens de créer les conditions d'organiser une sélection et non une élection euh, en 2024, surtout concernant l'élection présidentielle qui est tant attendue, tant attendue par le peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité interpeller directement Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall. Il n'y a pas de problème juridique concernant les hommes politiques. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la volonté d'un homme qui est en train de s'abattre sur, d'honnêtes citoyens, sur des leaders politiques